ku feebar bu nga faju waaye xam itam fa ngay fajoo ci la bokk kaay ma jox la adresse bu baax bi baraka bio 100 pour cent naturel indil leen ay produits yu mucc ayib yuñ defaree ak suñu ay gàncax set na sell na sans effet secondaire waaw ñu indil leen garab biñ dippee kun fa yëkkoon waaw man soigne tout laa ko tuddee moo xam bopp buy métti asthme hypertension hypotension fibrome kis diabète anémie ak yeneen xeeti jàngoro waaye yemuñ foofu góor ñi nga xamante nii dañuy perte réseau maanaam néew kattan ñu indil leen baraka chifa mi nga xamante nii moo mën ci wàllu ngóor góor ba tey ci wàllum góor ñi ñu indil leen le waaw yow mi nga xamante ni da ngay jàmbat varicocèle hématurie oligurie ak ah, maa ngi delloo ziar sëñ bi euh, di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan euh, seen euh, chaîne tele bi. waaw plainte bi nga xam ne tey dañu ñëw pour déposer ko nekkul ni mbir mi nga xamante ni moom moo xew fan yi sax moo tax ñu jóg. Mhm. waaye xëy na dafa tax ci li nga xam ne dafa bokk li ñu gën a yëkkati. Mhm. ndaxte nag euh, violence faite au femmes. Mhm. dafa yàgg ci Sénégal. ñu banaliser ko. ñu gis ki nga xamante ni sunu moroomu jigéen la. moom mbir mu def ko apologie. daal na ne ku ñu violé yow la neex. loolu nag jeexal képp koo xamante ne ni jigéen nga xolam. loolu jeexal xool ki nga xamante ni tey yaay nga mhm. loolu jeexal xool ki nga xamante ni jabar nga mhm. loolu moo tax ñu mobiliser mhm. xool ci gox-goxaat yi partout dans le Sénégal ba ci diaspora bi contacté nañ leen wax leen ni ku nekk fa nga nekk na nga jóg def signature ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité yi jot si xam ni kat ñun am nañ lu ñu metti te il est temps à ce que ñu arrêté di apo def apologie viol ñu ñu ñu ñu bañati jël li nga xamante ni toutes sorte de violences faites aux femmes la ñu jël ko rek di ko di ko def mu xaw ndax nax saay wala ñu ne lii ah du dara ñu banaliser ko quoi en fait c'est vrai voilà léegi def ngeen premier acte wala première pas déposer plainte def ay signature léegi combat bi si lan ngeen jëm nag combat yi bari na ndaxte boo seetloo am nañ benn acquis mooy la dernière fois criminaliser nañu mmh. viol ah loolu c'est un acquis pour nous mais dafa des lu bari ndaxte boobu léegi benn par benn la ñuy def waaye dafa des lu bari loo xamante ni nii ñun ñii jigéen ñun ñi ndaw ñun ñi yaay ñun ñii jabar ñun ñi doom ñun ñoo ci war a jóg taxaw uh-huh. te nag du léegi nii loo xamante ne nii dañu nekk di wax ni ñun ay action yu ñuy teg waaye di si quelque temps di ngeen gis ni kat ñun taxaw nañ ndax xam nañ ni xeex bi suñu xeex la ñun jigéen ñun ñu ñuy mettital ñun ñu ñuy xoxatal ñun ñoo ko xeexal suñu bopp donc li ci kanam raw li bët dëgg la laata ñuy tëj suñu waxtaan rek xeex gi dafa bëri pàcc rawatina ci comité d'organisation Miss Sénégal ñu ko organisé yéen ak ñoom est-ce que ñoom jot nañ déggante ak yéen ah waa am na si ñoo xam ne jot nañ déggante mhm. tamit il faut que tam ngeen xam ne jigéen yi fi ñëw ñëpp nekkul jigéen yi nga xamante ni ñëpp ñëpp ay déggante mhm. ñi fi daje tey kenn xamul keneen ku ci bari ndaxte ay mouvement yu bari la comme man mi di wax ak yow man maa nekk ki nga xam ne man maa jiite mouvement international aar jigéen donc mu nekk ci biir Sénégal nekk tamit au niveau de la diaspora ma nekk nag di xeex ak ak yelleef jigéen comme it it sama yeneen moroomu naataango yi nga xamante ni ñu ngi fi ñoom tam ñu yor seen ay mouvement donc ay dox daje la ñoo xam ne tey xol yee jógandoo ñëpp doj ñëpp daje fi donc man personnellement déggantewuma ak ñoom waaye xeex bi nee naa la Miss Sénégal dafa dafa dafa dafa tax rek ñu ñu ñu jóg waaye du xeex boobu kese moo ñu tax a jóg yeneeni xeex la ndax chaque jour nga dégg jigéen bu ñuy xoxatal chaque jour nga gis en général dañu daan gis góor moo daan xoxatal jigéen góor moo daan violenté jigéen mais bu ñu demee ba jigéen di violenté jigéen loolu nag ah jot na nag képp koo xamante ni jigéen ga nga daal di jóg. donc loolu la nekkul problème yu Sénégal bi kese mais dafa jéggi dayo ci bureau yi ci kër yi ci ci ci ci ci ci ci bërëb liggéeyukaay yi. ci ci fi ñuy jaayee. donc fépp foo xam ne jigéen mu ngi fay nekk ñu koy xoxatal. soit góor moo koy xoxatal soit jigéen moo koy xoxatal xeex boobu ñun mooy tey suñu xeex loolu ñu tax a jóg maa ngi lay fay euh, Amélie euh, tey je pense que suñu présence fii wane na lépp tey bu ñu ñëwee on n'est pas venu en tant que ku ñëw pour défendre qui que ce soit défendre Fatima wala défendre dañu ñëw tey pour défendre képp kuy jigéen tey jii ku fi ñëw rek c'est parce que da jàpp ne mën na daal sa rak mën na daal sa mag mën na daal képp kuy jigéen apologie apologie viol nag moom lañ dul seetaat muy am Sénégal on sera toujours là pour défendre les femmes. non xam nga dañu naan carrément nit ki peut-être ni nga mel rek noonu nga mën a wane ñun nag tey ji bu ñu demee ba ñëw di xeex loolu c'est parce que dañoo gis ne euh, dafa nekk loo xam ne tey dafa dafa commencé nit ñi di ñàkkal fayda viol te loolu du yoon ndax am na ñu bëri ñu ko dund ñoo xam ne tey ay traumatisme lañ si jëlee. donc tey on est debout comme une seule personne de pied ferme pour xeex loolu noonu tey on peut dire que nous sommes tous des Mamico aujourd'hui parce que Amina elle a porté plainte contre Mamico contre Kader et contre X donc on peut dire que le X là c'est le mouvement des femmes on peut dire que le X là c'est le mouvement des féministes on peut dire que le X là c'est le des activistes du Sénégal on peut dire que le, le X là c'est le Sénégalais lambda Donc, nous sommes tous concernés par le X là. En tout cas, on est là, on a, on a fait des dépôts de, de plaintes collectives, déposé nañ ko moom aussi, déposé une plainte contre Mamiko, Hamogunyo Banjo Lewi ici. Bunko Hame aussi, Dina Nyo, Tahao, euh, Nyo, Andak Mamiko, Gungeko. Instant bi, comme nous avons dit, les gars, nous sommes orange, c'est parce qu'on a 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. te couleur bi orange moo tax tey nag ñu ñëw maye suñu orange ñëw défendre jigéen yi te bés bu Mami di ñëw tamit beneen lay doon. Euh, waaw xam nga jigéen moom bu ñu laalee benn rek dafa mel ni société bi yëpp lañu laal te defe naa le monde est tellement avancé que fu mu toll nii moom am na leen loo xam ne ne jigéen Sénégal dootuñu ko nangooti euh, on parle même pas du fait ndax am na wala amul mais le fait que beneen jigéen mën a taxaw euh, publiquement di di reetaan di rikane di ñaawal beneen jigéen di tuutal kooku lu may wax ñun loolu la ñuy xeex te loolu lañ dul nangu parce que loolu day tax ba ñeneen ak ñeneen bu leen loolu dalee dootuñu wax te culture boobu dafa war dañ fii si biir dëkk bi les gens ils ne parlent pas parce que yaa ngi ragal représailles yaa ngi ragal après nit ñi lan lañ lay wax si suuf yaa ngi ragal ñu xas la yaa ngi ragal les conflits familiaux donc yooyu yëpp c'est à tenir à compte que jigéen ñoo génn wax rek loolu rekk c'est à donc waruñu ko waruñu ko push down waruñu ko tuutalal moom li ko métti dañ ko war a jàppale donc Amina Badiane elle devra répondre si nakaral bu mu nakaral jigéen ñi yëpp ci période bi nii ñun ñi ñëpp ñu fi nekk même cause bi la on a quelque chose qui nous fait mal moo tax ñu nekk fi loolu moo ñu gën a merloo parce que euh, la fille là qui était décédée à Thiès yooyu mu ngi fii ak yeneen i cas c'est comme si da ngay ne comme ñooñu ñëpp ñi nga xam ne dañoo dee parce que lan la elles ont refusé d'être violées day mel ni comme si ñooñu ñëpp ñoom la neex ñu violer leen wala elles ont quelque chose a avoir ci seen viol xam nga loolu saaga passé wu ko. voilà donc mënoo ne nit ki nit ki mënul ne dañ ma violer nga ne ko lan nga fa doon def wala kuñ la violer yow la neex loolu du wax ku responsable parce que bu doonoon moom du ko wax. te moom elle est juste bête mais même à son âge elle doit savoir que boo amoon nit 80 ans mën nañ la violer en tant que femme doole jigéen ak doole góor bokkul donc ñun waxuñu sax le fait que ndax Fatima elle a été violée oui ou non ñun la la ñuy kaas mooy moom ñàkkal fayda bu mu ñàkkal fayda viol ñàkkal fayda bu mu bëgg a ñàkkal fayda jigéenu Sénégal parce que yenn éducation moo koy mottali am tuuti compassion am tuuti empathie mais moom amu ci benn parce que mënuñu la wax ni que diw nee na dañ ko violé yow li nga njëkk a def sa première réaction reetaan la wala moom bu ci xamee dara nañu wax xëy na moom xam na ci ñun ñun luñ ci xamul nañu wax oh, tout sauf ça on est on est dans euh, dans dans un pays civilisé on va pas faire ça lépp loo xam ne daal yoon may nañu ko dinañ ci def dinañ ko def incha allah duñ ko bàyyi mu sedd te nag na xam na ni euh, manipulation bu muy def di jéem a porter plainte ay ñoom Mamico Mamico defu ko waxu ko elle a elle a elle son plateforme bu ko neexee mu mu def euh, euh, live am ku mu bëgg mën nga dugg one dans un pays démocrate moom du moom mooy décider lan la nit ñi di wax moom instant bii nii moom la ñuy tëggal sabar na ñëw wuyu ji moo gën muy dof lu di porter plainte ay ñoom Kader ji en en passant buñ ko fàtte aussi parce que si góor yi yëpp Kader Gadji laa si gisagum ak Mamata bu Jamra ñooñu laa si gis ñu réagir gum alors que y' a beaucoup d'hommes combat bi du combat jigéen yi kese combat yi góor yi la aussi donc na si ñëpp ñëw ñu jàpp ñu jàpp si ñu bañ a bàyyi mu sedd parce que bu ñu bàyyi mu sedd rek mun na dal yow sa sœur mun na dal man mi sama doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen fexe ba képp ku jógate di wax non sens yooyu noonu ñu arrêté la ba nga xam ne ni ku am wax yooyu noonu na nga ko yemale sa biir mais doo toog si média bi di wax genre wax yooyu noonu di def apologie bi keneen ku ko dégg foog ni tu as alors que c'est du lu nice du lu rafet te tamit du suñuy valeur nit da ngay am éducation mais elle n'a aucune éducation ngeen baal ma si wax bi merci beaucoup merci merci ku feebar bu nga faju waaye xam itam fa ngay fajoo ci la bokk kaay ma jox la adresse bu baax bi baraka bio 100 pour cent naturel indil leen ay produits yu mucc ayib yuñ defaree ak suñu ay gàncax set na sell na sans effet secondaire waaw ñu indil leen garab biñ dippee kun fa yëkkoon waaw man soigne tout laa ko tuddee moo xam bopp buy métti asthme hypertension hypotension fibrome kyste diabète anémie ak yeneen xeeti jàngoro waaye yemuñ foofu góor ñi nga xamante ngóora ba tey ci wàllu góor ñi ñu indil leen la papa waaw yow mi nga xamante ni da ngay jàmbat varicocèle hématurie oligurie ak